Setsima TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur TV xibaar yu wér te wóor amis et fidèles internautes leen ak jàmm tey seen reportage du jour mi ngi am fii si Golf Sud ñu fa yéenee waxtaanee cigarette dañoo seetlu ne Sénégal jeunes yi dañoo commencé utiliser cigarette bu baax a baax tey nag ma ànd ak sama caméraman Papa Sané may ñaan nga topp ma ma xool sénégalais lan lañ xalaat ci jeunes yi tux si nuyu naa la fay naa la tur Absa do tudd. Absa nday nag dañoo ñëwoon def reportage ci affaire cigarette dañoo seetlu ne Sénégal majeure partie jeunes yi dañuy tox ma la doon laaj yow en tant que jeune lan nga xalaat ci lool. ah cigarette de moom wax dëgg yàlla liñ ci xam mooy baaxul waaw ah, ñi koy tux tamit war nañ koo arrêté parce que loo xam ne moom baaxul ci sa wér gi yaram moom defe naa amul la benn intéret pour nga koy tux tamit. yow am nga jëkkër. man déedéet. tey boo amoon jëkkër buy tux ban comportement ngay am ci ah loolu de ñaanu ma ko yàlla de waaye dina compliqué de parce que man déjà sax mënuma nooy xet cigarette. Mhm. léegi yow lan ngay conseillé ñiy tox lan nga leen di conseillé. waaw li ma leen di conseillé mooy ñu bàyyi ko rek parce que cigarette moom baaxul comme li ma la wax sànq rek loo xam ne moom baaxul sa wér-gu-yaram moom. defe amul sens pour nga nekk di ko tox di yàq sa santé et tout ça. xam nga ñi ñiy ñi dul tux dañ naan baax ci wér-gu-yaram mais ñiy tux dañ naan cigarette dafa baax parce que dalay permettre ngay régler yenn problème yi lool loo ci xalaat loolu moom defe naa ni moom amul njëriñ parce que yàlla moom defe naa ni lépp loo gis rek am na ci saafara parce que souvent day wax sax ci alxuraan na laa maa saabiroon ñu woy muñkat yi rek laay àndal kon defe naa ne boo amee loo nga muñ ko te yàlla tax moo gën ngay jël cigarette di ko utiliser pour muñ. loolu bi nuyu naa maa ngi lay fay soxna si bu baax a baax. tur bi naka la. Ousin Diop. Ousin tey dañoo ñëwoon def reportage affaire cigarette léegi ma lay laaj yow en tant que jeune lan nga xalaat ci jeunes yi tox cigarette. ah cigarette da nekk na loo xamante ni moom nekkul lu baax man de du ma ko def waaye képp ku koy def tamit dama naa la nga bàyyi ko parce que nekk na loo xamante nii baaxu ci santé te et nekk na loo xamante ni dafa yàq société bi parce que gis nga toxantu yu ndaw yi ngay gis nii moo la à ce que euh, tey. suba yàmba gannaaw suba leneen ak leneen man xale bu ma gis buy tux bu nekk su ma la dee conseil dama naan la bàyyil ndax amul mucc parce que loo xam ne baaxu ci santé baaxu ci santé ba noppi te dafa yàq sa xaalis te am na nooy de boo boo booy booy tux rek de da ngay dem fenn rek dañuy xam ne kii da doon tux te loolu bokkul sax ci respect te am na lu bay loo xam dégg naa ñu ne boo dee boo tëddee balaa balaa bu ñu lay sàng bokk na ci li nga xamante ni dafay génn loolu rek nekkul euh, signe boo xamante ni signe bu rafet man de damaa ngi digal xale yi képp ko nga xamante ni yaa ngi ciy toxantu teelal arrêté ndax amul mucc ndax dañ ciy yàq sa xaalis amul leen lu mu mën a apporter au contraire dafa yàq li nga xamante ni moo nekk ci yow cigarette moom baaxul tey baaxul ëllëg bañ na ko ba ñu koy jaay bañ na ko ba dina avis dangereux pour la santé n'est-ce pas merci kon loolu nag sëgam ki lay jox li ngay jëfandikoo moo naa la li ngay jëfandiku baaxul kon ñoom ñi koy jëfandikoo war na ñoo xoolaat seen bopp bu baax baax ndax amuloo lenn lu mu lay apporter lu dul dalay dalay maanaam dalay gaspiller dalay yàq dalay nal ba nga jeex tàkk mais am na ñoo xam ne dañ naan euh, bu ñu amee problème buñ tuxul duñu nekk loolu loo ci xel non ci xel la rek ci xel la parce que tey nit ki nga xamante ne danaan su ma naanul kafe du ma nekk su ma deful nangam du ma nekk su ma tux du ma nekk mais tux bi nga ci lan nga ciy sentir yow tey bu mu la joxoon cigarette nga di ko xëcc looy sentir. waaw énergie booy dépensé ba noppi boo boo toogee sax toxuloo ko mu jàpp sa bopp bi maanaam ci xel la rek am na loo xamante ni ci xel la ndax tey bu fekkee da nga naanuma kafe damaa sonn tuuxuma damaa sonn ci xel la am na loo xamante ni ñu ñoo koy tàmmal suñu bopp man maa ngi ni du ma naan kafe du man comme ni ko sos di waxee du mu naan café. yow ba nga nekkee Ouzin ba tey mosoo tox. toxatu naa kayit. non mosuma koo tox. mosuma koo tox waaw xam naa daal yi gars yi di wax bu la laajee nga du ma tox du ma naan ataaya du ma naan café ñu ne bu ci topp man la waaw waaye xam naa ne moom man du ma ko tox man. waaw te képp ku koy def tamit dama lay ñaan ne la nga bàyyi ko parce que baaxul. solo merci beaucoup. merci beaucoup maa ngi lay bu baax a baax. et fidèle internaute ñoo ko gisandoo tey seen reportage du jour mi ngi amee woo fii ñu doon waxtaanee cigarette gis ngeen sénégalais yi lu ñu xalaat ñii nee nañ baaxul parce baaxul ci wér yaram ñii nee ñoom bu ñu amee problème tant que seen problème du résoudre ñoo ko gisandoo avis yi nag c'est partagé ma bàyyi leen yéen sama mbokk internet yi à vous de juger di leen dox di daje ci seen beneen reportage du jour maa ngi remercier prochaine bye bye. Setsima TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur xibaar yu wér te